min kitaabi shamaa'ili l-muhammadiyati ala saaxibiha afdalu salaati wa atammu taslim nee na baabu maa jaa fi libaasi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy buntab li dikk ci koddaayu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa dana ci indi fukki xadis ak juróom di ci wax yan xeeti yére la yonentu sallallahu alayhi wa sallama daa sol nee na xaddatanaa nettali nañu muhammad bnu xumaydin hmm. arraziyu hmm. mu ne xaddatanaa nettali nañu hmm. alfadlu bnu muusa wa abu tumaylata ak abu tumaylata wa zeydu bnu xubbaabin ak zeydu bnu xubbaab an abdilmumini jëlee ci sëriñ bu ñu abdul mumin bini xaa an abdil mumin ibni xaalidin doomi xaalid an abdillahi ibni buraydata kooku jëlee an ummi salamata suñu ndey eh, radiyallahu tabaraka wa taala anha qaalat mu ne moom ummu salamata kaana nekkoon na alxamiisu maanaam mooy lisimi kaana gi dañ ko mujjee njëkkee xabar gi hmm? kaana nekkoon na alxamiisu mbubum alaaji mooy lii wolof yi di wax chemisu alaaji kaana hmm? nekkoon na alxamiisu chemisu alxaaji te mooy mbub mu gudd am fu bopp bi di génnee comme fii mooy na mbub mu am baat ba pare am ñaari loxo te mbub mi peeg yaram wi yépp mooy chemisu alaaji misaal laaji bile nekkoon na habba bi di li gën a sopp ci yére yi ila rasulillahi jëm ci yonantu sallallahu wa sallam yonantu daal yére bi gënoon a sopp ci moom ci biir yére yépp mooy mbu mu gudd ndax dafay peeg yaram bi yëpp hmm? ndax dafay suturaal yaram yëpp waaw te dafa noppale Mm-hmm. nee na xaddasanaa nettali nañu ali ibnu juxrin dégg nga ali ibnu xujrin xaddasanaa nettali nañu alfadl ibnu muusa an abdilmumini mu jëlee ci abdilmumin bini xaalid an abdillahi bni buraydata an ummi salamata radiyallahu anha yal na yàlla gërëm ko qaalat mu ne kaana nekkoon na alqamiisu mbubu mbubu mu gudd alqamiisu chemisu alaaji ahabba thiyaabi di gën a sopp ci yére yi ila rasulillahi jëm ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaari riwaaya la mm-hmm. waaye benn xadis la mm-hmm. mm-hmm. nee na xaddasanaa nettali nañu Ziyaad bnu Ayuba al-Baghdadi yu koy Baghdad mu ne xaddasanaa nettali nañu Abu Tumaylata an Abdilmumin bni Xaalidin an ummihi jëlee ci ndeyam hmm. an ummi salamata hmm. jëlee ci ndey umu salamata hmm. radiyallahu anha qaalat mu ne kaana nekkoon na ahabba thiyaabi gën caa sopp ci yire ila rasulillahi jëm ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam yalbasuhu bëpp dana ko sol alxamisu mbubum alaaji alxamisu semisu alaaji Hmm? qaala nee na hakada nii qaala la waxee qaala la wax ziyaad ibnu ayuba fi xadiis yi ci xadiisam an abdullahi ibni buraydata jim jëlee ci abdullahi doomi buraydata an ummi mu jëlee ci ndeyam an ummi salamata mu jëlee ci ummu salamata wa hakada naka nii rawaa la solo xadiis ji wala rawaala solo xayru waaxidin lu dul benn mooy lopp kenn mm-hmm. an abi tumaylata mm-hmm. jëlee ci abi tumayla mm-hmm. mithla riwaayati ziyaad ibni ayuba kem riwaaya ziyaad doomi ayuba wa abu tumaylata eh, abu tumaylata moom yasiidu dana yokku fi haada alxadis ci xadis ji an ummihi jëlee ci ndeyam te wa huwa loolu asaxu moo gën a wér maanaam boo ne abdullahi ibnu buraydata hmm. an ummi salamata hmm. nga ne abdullahi ibnu buraydata an ummihi an ummi salamata moo gën a wér hmm. maanaam abdullahi ibnu buraydata jëleen nañ ci moom xadis mu nettali ko jëlee ko ci ummu salamata waaye am na ci riwaaya yoo xam ne ci yaayam la ko déggee yaayam déggee ko ci ummu salamata nee na riwaaya boobu nag moo gën a nee na xaddasanaa nettali nañu hmm. muhammadu bnul xajjaaji hmm. mu ne xaddasanaa nettali nañu hmm. mucaadu bnu hishaamin mu ne xaddasanii nettali na ma abii sama baay an budaylin jëlee ci budayl ni dañ koo laaj kuy budayl mu ne yaa nii namm na dana ci namm ibna maysarata hmm. doomi maysara hmm. al uqayliyu hmm. kay ko jugo uqayl kooku jëlee an shahr ibni hawshabin an asmaa mu jëlee ci asmaa binti yazid doomi yazid radiyallahu tabaraka wa taala anha asmaa bintu yazid mi saxaabiyatu la mm-hmm. bokkoon ci lansaar mm-hmm. ñu koy dàkkantele ummu salamata mm-hmm. waaye bul ko jaleeg euh, ummu salamata mi nga xam ne mooy suñ ndey di soxna yonantu sallallahu alayhi wa sallam ummu salamata la tudd ummu salamata mi nga xam ne mooy suñ ndey nag di soxna yonantu sallallahu alayhi turam mooy hindu bintu abi umayyata hind bintu abi umayata waaw doomam tudd salamata tax ñu koy dàkkantale ummu salamata mhm. bokkut asmaa mi xaalat nee na kaana nekkoon na kummu rasu kummu xamiisi rasulillahi loxool mbuboom mbuboom yonantu bi mhm. loxool mbuboom yonantu bi mhm. sallallahu alayhi wa nekkoon na hmm. ila rusri hmm. di yegg ci tikku njaram hmm. walla takkukaayu njara fii wala fii lay wax tikku njara ndax dañ fi daan takk ay jar ay jara nee na yonentu sallallahu alayhi wa li xagsi woon na ko kaana nekkoon na kummu qamiisi rasulillahi loxool mbuboom yonentu sallallahu alayhi wa sallam di xagsi ci takk njaram sallallahu alayhi wa sallam xadis mm-hmm. mm-hmm. ji nag boroom taxqiq bi def na ci dofu mm-hmm. mu ne ndax eh, Shahr ibnu Xawshab mm. ibnu Xajar mm. wax na ne mm. waxkatu dëgg la waaye dafa bëri lu muy def irsaal ak bëri lu muy def awhaam waaw irsaal ci xadis mm-hmm. misaalam mooy mm-hmm. kuy nettali ni jëlee nañ ci yonantu bi sallallahu alayhi mm-hmm. te moom giseewut gisut yonantu bi maanaam mu tëb saxaabi bi nga xam ne euh, dox na ci digganteem ak yonantu su fekkee ne taabiiyu dafa wax ne jëlee nañ ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam te xam ne taabiiyu bi gisul yonantu bi ñu xam ne kon am na kum tëb loolu mu hadis mursal la loolu ci fuqahaaw yi danañ koy jëfandikoo mm-hmm. waaye asxaabul xadis mm-hmm. ñoom dañ koy lompañal xaddasanaa mm-hmm. nettali nañu abu ammaarin sëriñ la mu mel ni fañ ko laaj ban ci mu ne alxuseynu bnu xureys laa wax kooku ne xaddasanaa nettal nañu abu nuaymin kooku ne xaddasanaa nettali nañu hmm. hmm. hmm. zuhayru an urwata bni abdillahi bni qushayrin kooku ne an muawiyata jëlee nañ ci muawiyatu bni qurrata laa wax an abi jëlee ci baayam radiyallahu anhu yenn yàlla gërëm ko qaala mu ne hmm. ataytu mos naa dikkal hmm. ataytu dikkal naa hmm. rasulallahi yonentu sallallahu alayhi wa sallama eh, fii rahtin ci kuréel rahtu mbooloo moo xam ne ëpp na ñett te matut fukk ba ba rombut fukk waaw digge mbooloo moo xam ne diggante ñett ba fukk hmm. moom la ñuy wax rextu hmm. hmm. mel ni juróom-ñeenti nit ñoo yàlla di tudd ne ñoo doon fexeel seenu yonantu pour rey ko yonantu yàlla saalixu mu ne ateytu dikkal naa rasulallahi yonantu salallahu alayhi wa fi raxtin ci mbooloo min muzaynata dégg nga tukkee ci muzayna li nu bàyyi aw ngir ñu jaayanteeg moom mm. rëhtu nag boo ko mm. déggee mbooloom góor lay dox mm. du am jigéen mm-hmm. wa inna qamiisahu te naka mbuboom yonentu sallallahu alayhi wa sallama mm-hmm. la mutlaqun luñ booyal la mm-hmm. aw qaala wala dafa wax ne zirru qamiisihi bouton wu mbuboom mutlaqun luñ booyal la fa adxaltu ma dugal ya di sama loxo fii jaybi qamiisihi mhm. ci baatu mbuboom mhm. fa masastu mhm. ma laal alxaatima xaatamu nubuwati gi mu ngi wan ma ne booba bouton yi mbub mi wala baatu mbub mi ubbeeku na ba mën caa dugal loxoom pour laal xaatimu nubuwati gi nga xam ne moo nekk ci mbaggam ndeyjoor mi sallallahu alayhi wa sallam nee nettali nañu abdu bnu xumaydin ab sëriñ la kooku ne xaddasanaa nettali nañu xamaad bnu salamata waaye ci ci fii dafa def muhammad bnu lfadl sooga indi xamaad bnu salamata an Habib ibni Shahid jëlee ci sëriñ bi ñëw Habib ibni Shahid an il-Hasan an Anas ibni Malik anna nabiya naka yonantu sallallahu alayhi wa sallama xaraja génn na bés wa huwa ta moom yattaki'u mi ngi sukkandiku ala usaamata bni zeydin ci usaamatu doomi zeyd mi nga xam ne moom la yonantu gënoon a fonk ci nit ñi ni mu fonke woon xasan ak xuseyn waaye sëtam mm-hmm. noonu la fonke woon usaamatu mi nga xam ne mm-hmm. zeydu mi nga xam ne mm-hmm. yonentu moo ko doomoo woon ba yàlla indi aaya jamuy teree doomoo gim doomoo zeydu ba koo teree takk zeynabu waaye terewut bëggoon zey zeydu ba mu ëpp bëggoon usaamatu doomi zeydu ba mu ëpp dégg nga yar ko it formé ko ba nga xam ne moo mën ci góor ñi armée bi yonantu mujj a takk hmm. pour mu xeexi hmm. usaamatu moom la ca jiital hmm. bi yonantu tëddee feebar ñu xaar bi fi yonantu génnee àdduna am ñu naan usaamatu xale bi abubakar ne ah man duma wàccee ko yonantu jiitaloon usaamatu mooy jiite xare ba ndax booba yonantoo ngi ko yónni ca muutatu te muutatu fa lañ reyewoon baayam xale mën a fayu rawati rawatina xare buñ rayee baayam mu ne gis naa yonantu sallallahu alayhi wa génn sukkandiku ci kaw usaamatu alayhi nekk na ci kaw yonantu sallallahu alayhi wa sallam booba thawbun ab yére qitriyun bay ko jug qitr doo wax qatariyun am na ñuy juum waaye yun la mooy ab dégg nga manto mm. na xeetu manto la boo xam ne mm. dañ koy defaree ca Yemen mm-hmm. te coton lañ koy defaree mm-hmm. mu am xonq-xonq mm-hmm. aki màndarga ci ci ci ci ci mbub mi ànd ak ak ak ak dëgër nag mm. manto bu dëgër lay doo dégg nga ñu defaree ko coton te ci ca Yemen la lay jógee saw bun xitiriyun dégg nga mu ne qad tawashaha mm-hmm. gàlloona bi ci moom mm-hmm. mooy mu ngi ko teg ci kaw mm-hmm. uh, doqam fa salla bihim mu jiite leen julli waaw ah, mi ngi wane ne rek yonentu sallallahu alayhi wa daan na sol uh, xeetu mantu yi de dégg nga de mu ne wa wax na abdu bnu xumaydin qaala wax na muhammad ibnul fadl hmm. saala nii laaj na ma hmm. yaxya bnu mahin hmm. yaa sëriñ mu yaxya bnu mahin ku ku yéeme la woon ci ñooñ xadis àndandoor seydna ahmad ibnu hanbal la laaj na ma an haada alxadiisi ci bile xadis awwala ma jalasa bi njëkk a toog ilee jëm ci man fa qultu ma tàmbali ko nettali xadis ji naan ko xaddathana nettali nañu xamaad ibnu salamata mm-hmm. sëriñ bi ñuy wax xamaad salamata fa mu ne ma mm-hmm. law kaana su fekkoon nettali gi min kitaabika ci sa téere bi mm-hmm. soo ma ko mënoon nettali ci sa téere bi mo ma gënal fa qumtu ma jóg li uxrija pour dem jëli génnee kitaab bi sama téere fa qabada ala thawbi mu téye sama yére summa qaala topp mu ne ma hmm. am lihi di fitte ma hmm. am lihi fitte ko alaya ci man hmm. fa inni ragal naa xaaf fa inni naka man a xaafu ragal naa an laa alqaa duma dajee teeg yow qaala mu ne fa am laytuhu ma fitte ko maanaam ma digte ko alayhi ci moom summa topp axrajtu ma génne kitaabi sama téere fa qara'tu ma jàng alayhim wala fa qara'tu alayhi ma jàngal ko ko seetal mag ñi mm-hmm. niñ xëree woon ci xam-xam mm-hmm. yaxya ibnu mahin mm-hmm. bi muy njëkk a dajeeg sëriñam bii di muhammad ibnul fadl nee na xadis ji la ko njëkk a laaj nee bi ma ko commencé nettali xadis ji mu mel ni dafa bëgg lu gën a wóor mu ne ma boo ma ko jàngaloon ci fi nga ko bind moo ma gënal nee ma jog di dem ci néeg ba wala fa ma ko def pour jëli téere bi génnee ko mu téye sama yére ne ma wax ma ko mm-hmm. ndax ragal naa mm-hmm. mën naa am nga dee wala ma dee balaa ngaa ñëw mm-hmm. te bon xadis jaraw ma ñoom benn xadis gis nga ni ni mu leen jarale woon tukki Shu'batu tukki na ñeenti weer di lu benn xadis yi nga xam ne yonentoon ciy wax ne ku jàpp hmm. ba noppi wax ashhadu an laa ilaha illallah ba mu jeex hmm. daal di wax uh, ñaan ga hmm. nee yàlla ubbil na ko juróom ñetti bunti aljanna mu dugg ci na ci duggee bu bu ko neex soxbatu topp na xadis ji ñeenti weer dégg nga fu mu dem ñu ne ko fa barab sàngam lañ ko déggee fu mu dem barab sàngam lañ ko déggee pour wérlu xadis ji waaw bu fekkee benn xadis a leen jaral loolu te ñu mokkaloon ay téeméeri junni xadiis te bu nekk ñu daj ca Mm-hmm. ñun bon lu ñu war a def mm-hmm. ñun ñi nga xam ne dajale nañu yëpp mm-hmm. jàng rek a ñu ci war dégg nga de nee na xaddasanaa ñu tëjee jooju xaddasanaa nettali nañu suwayd ibnu nasrin xaddasanaa nettali nañu abdullahi ibnu lmubaraki an said ibni iyaasin dégg nga de abdullahi ibnu lmubarak danañ dégg turam bokk ci eh, kilifaay jullit yi nga xam ne hmm. seenug càmm ak seenug baax ëpp na hmm. an said ibnu iyaasin hmm. jëlee ci said ibnu iyaas aljurayriyu aljurayriyi kay ko jug jurayr an abi nadrata wa an abi said jëlee ci sayidna abu said alxudriyi radiallahu anhu nee na kaana rasulullahi mm. kaana nekkoon na mm. rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ida mm. su dalooxee sawban yére stajadda mooy sol yére bu bees rek mm-hmm. ay labisa thawban jadidan ida su dalooxee thawban yére sammaaw daf koy tuddee bismiy turam mm-hmm. su dee yére ba kaala la daf koy tuddee imaamatan kaala mm-hmm. daf koy wax dafay tudd tur wa mm-hmm. aw xamiisan wala yére bu bu dee ab chemise la mm-hmm. aw ridaan wala bu dee làmbaay la thumma yaqulu topp mu wax allahumma yow sama borom laka ñeel na la alhamdu sant kama kasawta niihi ni nga ma ko hoddee asaluka maa ngi lay ñaan xayrahu yiwam wa xayra ma sunia lahu ak yiw la tax la lañ li lañ wa xayrama su ne ak liiw la nga xam ne su ne a na ko loo ñeel ko mm-hmm. wa audu bika maa ngi lay mus maa ngi muslu ci yow mm. min charrihi ci xayam mm-hmm. wa charri ma su mm-hmm. ak ci ayu la nga xam ne su ne a liggéeyef na loo ñeel ko maanaam ni yow yàlla yaa maa ngi lay sant mm. ni nga ma xoddee yére bi mm. maa ngi lay ñaan nga may may yiw yiwu yére bi ak yiwu màndaaleel musal ma ci xayam ak mm-hmm. xayuk lu mu àndal mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. loolu yonentu daan na ko wax nee na su solaan yére yére yu bees saxaaba yonentu sallallahu alayhi wa boo solaan yére bu bees dañ daan wax tub lii wa yuxlifu laahu taala hmm? dañ la daan ñaanal loolu bokkoon na ci seen njub te ñoom seen njub yëpp njubal mm. yonent bi la mm. waaw boo solee yére dañ laa tub lii yàlla na nga ko ràppal mm-hmm. wa yuxlifu llahu taala te yàlla na la yàlla remplacer leneen mm-hmm. maanaam yàlla na nga ko sol ba mu ràpp yàlla indil la leneen mm-hmm. mooy li wolof di wax ràpp ak jàmm allahumma salli ala sayidina muhammadin ilfaatixi lima uliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri lxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqim ala ali xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun ala almursalin alhamdulilahi rabbil alamin amin amin wa iyaakum amin ya rabbi